farde nga wax naa la ko nangul ndax mouvement bi ñu koy taxawal c'était en 2006 tey expression karimiste ñun ñoo ko génnee ndax 2006 Karim nekkul nekkul ministre donc dañoo amul vision gis ne kii liñ ko dénkoon muy OCE bi ak annonce bi mu yoroon am na ci loo xam liggéey na ko mu dal sunu xel. ak coono loolu bi ci am yëpp ci annonce bi. bi ñu demee keroog ci Henri Grégoire génne ne lépp teg na ko ci taal amul dara loo xam toppee nañ ko ko ñaareel bi mooy. vision bi ñu gis ci moom sa euh, sa euh, portefeuille relationnel bi nga xamante am na ko constance am ak liggéeyam ak bëgg réewam ñu ne kii suñ ko jàppalee am na nañu yaakaar ne dana jël réew mi après ci la ko président Wade def ministre euh, des transports aériens def ko ministre de la coopération internationale ak ministre des infrastructures. la terre. de l'eau ko laajee Abdou Diouf nee li ma Senghor dénkoon moo ëpp li Abdoulaye dénkoon Karim kon foofu amul problème parce que euh, Abdou Diouf yoroon na sept département jamono yi Abdou Diouf. Abdou Diouf nga wax de. Senghor jamono yoroon na ko moo ko wax audio yaa ngi fi vidéo yaa ngi fi. beneen bi mooy que ne fi nga xam ne ñun fa la ñu jëm mooy ay élection présidentielle lañ jëm pour la première fois dans l'histoire du Sénégal fi ñu tollugum nii bu fekkee ne amul revirement de dernier te yaakaaruma ko dañuy dem ci élection yoo xam le président sortant du ci bokk. donc ci la ñuy tànn un vrai président président war bi ñu ko fiy jëlee ñu bëri dañu ko mere woon def complot national international ba jëlee ko fi. Abdou Diouf bi ñu ko fiy jëlee dañu bëri dañu ko mere woon jëlee ko fi doyal ci moom. Abdou Diouf alternance moo ko fi jëlee. alternance moo bi ñu jógee foofu noonu ñu ne tey dañuy fal koo xamante ne président de la République Sénégal la fal du ñu am problème mu bii di ñëw problème mu troisième mandat parce que constitution bi nga xamante ne moo fi nekkoon 2001 bu léegi dafa limité mandat yi donc maintenant cinq la. donc président bu ñu ko war a fal lu n'importe qui la ñu war a jël fal ko bu fekkee te nit ñi dañoo mere Macky Sall tey jii nii waruñu tey képp ko am ku taq ci Macky Sall la ñu jël ko jox réew moo tax tey jii APR lu mu gën a pëccëxoo lu mu gën a xar ñaar ñett ñu man sama yoon nekku ci beneen bi mooy que ne fi nu jëm dañoo am un bon profil boo xamante ne profil boo xamante tey jii bu taxawee dina mën a taxaw jàkkaarloog bitim réew un profil boo xamante ne la géopolitique nationale la géopolitique africaine la géopolitique mondiale mu xam ko. Ah, Karim Meïssa Wade laa bëgg a ah. donc boo ma daggee rek da ngay da ngay kii da ngay kii sama raisonnement. Ah, da ko këruma ko. non donc kon fi nu jëm noonu. géopolitique mondiale boobu noonu. lu n'importe quel profil moo ko war a yor. du n'importe quel Sénégal te am na candidat yu bare bare bare taxaw fii du wax discours bu rafet macha allah te discours bu rafet yoru réew. tey boo leen wax tey lu numéro un mondial ci wàllu zircon wala pétrole. wala koo xamante ne ci wàllu oto wala ci wàllu infrastructure wala ci wàllu agriculture duñ ko sax xam ñoom seen vision fii la yam biir Dakar wala biir Sénégal donc tey fi nu jëm nii dañoo war a tànn koo xamante ne ci wàllu portefeuille relationnel ci wàllu xam-xam ak ci wàllu duggalante ci ñi nga xamante ne ñoo yor alal ci réew mi ak ñi nga xam ne dañoo soxla gaz soxla pétrole yow naka nga mën a jëlee tey xaalisu euh, maanaam alalu Sénégal ressources minières pétrole gaz nga war ko jël côté ko ci bourse bi nga xamante ne moo am naka lañ ko mën a jaay suñu xaalis bi pour mu mën a yëg comme ni Kadhafi defoon une genre profil yooyu lañ soxla profil boo xam dafay comprendre li nga xamante maanaam mooy pétrole comprendre li nga maanaam mooy mine comprendre li nga xamante maanaam mooy géopolitique ak profil boo xamante ji su ñëwee Sénégal yi ni ñu tasaaroo tasaaroowee Sénégal yi bañante seen biir te bu ñu waxatee dëgg taal tax depuis presque deux ou trois ans Sénégal yi neexootuñu seen biir bu njëkk ba damaa ngi benn émigré bu jóge bitim réew ñëw Sénégal li bi njëkk a def cinq jours après day dem seeti ay morom émigré am seeti seen waa kër yóbbu leen sa mais sénégalais ñu ngi xeexante bitam ndax affaire parti politique tey bu ci biir réew mi tey ji maanaam bañante gi ni mu amee dafa dafa dem ba jéggi dayo donc le président bi war a ñëw mooy ki am dafa war a rassembler les sénégalais maanaam d'abord protéger leen ñaareel fexe ba waxtaan ak ñoom ñu jubóo leen am benn vision boo xamante pour jëkkati Sénégal mu dem ci kanam tey boo xoolee Singapour mu développé ci wàllu aviation nga dem tey xool Éthiopie ni mu développé am ay compagnie aérienne yoo xam ne tey jii ñun Sénégal bu ñu doon calculer amuñu sax lu ma 10 donc tey profil boobu la ñu soxla te profil boobu wax dëgg yàlla bi ñu demee ba xool Karim Wade gënuñu ndey gënuñu bàyyi gënuñu juddu mais am nañu yaakaar ni moom bu ñëwee taxaw ak programme bi nga xamante moom la fi PDS bàyyi woon ñu ànd ci pour suqali Sénégal soppi Sénégal mu jëm kanam li nga xamante ne Macky bàyyi na ko fi ci lu baax mu mu bàyyi ko fi li nga xam def na ko ci loo xam lu bon la mu jubbanti ko ñu ànd ñu réew jàpp na ni bu ko Sénégal jàppale ak ñu mel ni moom bëgg réew mi taxaw booloo nekk benn wóolu ko mu dem ci élection ñu voteel ko bu boobaa Sénégal yi nañu xam ne fan lañ koo xam tey ji réew mi am nañu yaakaar ne dina ko jëmale kanam